ginnaaw raay amul benn passerelle bu dul euh, passerelle bi nga xamante ne moom lañ fi am muy tali karo yaakaar naa bu fa bëggee créer ay euh, cantine daf ñuy indil encombrement andil ñu insécurité ak insalubrité ñun loolu la ñuy bañ depuis lors ñu ngi koy casse de gauche à droite mais moom il ne cherche même pas à comprendre moom li ko arrangé ak li ko neex loolu lay def ñun nag population bi ànduñu ci loolu nee nañ ko na arrière ci loolu nu mu gën gaawee parce que du fi nekk bëgg fi nekkal boppam. ku kaas mu oola am fu mu jaar ak yow bu subaa nga am complexe mën a wax ak moom ñun du ñu genre yooyu ñun tey population bi lañuy xeexal et révolutionnaire la ñi nga xamante ne vraiment yàgg nañ ci dëkk bi xool ginnaaw raay ça fait plus de trente ans moom def na dix huit ans gestion te gisuñu fi dara éclairage public zéro usine bi zéro euh, emploi zéro actuellement li mu fiy def yëpp du leen lu ñoom seen bopp lañ fi nekkal heure boo demee toog moom premier point mooy day jéem a xool yan point ngay ngay teg point ngay teg day xool naka la mën a def ba koñe la ba mën la manipuler jaxasala ak population bi nga ko seqal pour mën a dugg seen biir fu mu dugg day tas foofu fu mu dugg rek gis ngeen di kaas day leen di jéem a tas séparé leen ngeen yàqoo seen biir su defee ku ci ku mu ku mu ku mu wéetal am lu mu la lu mu la may ci xaalis boo léegi doo ñemee taxaw ci presse bi di kaas te loolu demul jëmalewul ginnaaw raay kanam. def na 18 ans yi nga fi nekk yëpp ñaata budget bi ñaata la.

ay recette ay cantine lay créer pour def ay recette lolou sen bop lañ fi nekkal te ñun lolou comprendre nañ ko cantine yi mën nañu andil encombrement mën nañu andil insécurité mën nañu andil insalubrité looloo waral ñu bañ ko diko xex parce que bo xoolee suñu doomi wi jangi apix ci kaw tali lañuy jaar kon bu fa defé cantine su boba suñu doomi ci kaw tali lañuy jaar te boba accident yi mën nañu bari ci biir talib yi ñun xam nañ ni mi manipuler doomu aadama yi fan ye genn na télé na population bi luñu bëggul duma ko def wa léegi ñun ñu cantine nañu ci jappalé lutax mënu ko def cela veut dire moom day dox ci maanu ñi ñun xam nañ mooy kan xam nañ ban genre la ñun nekkuñu ñi mu mën a manipuler ginnaaw raay dépassé nañu borne boobu. Ah xeex bi jaral nañu xool ba suñu bakkan amul lenn lu ñuy reculer loo ci cantine yooyu. birig du fi tegu amul lu muy jaralul.